Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar ah ah café ah, ah eh café café café café ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk Gop gop gop gop gop gop kafe kafe kafe kafe. ah non booy. yéen si biir si ngeen. xanaa ay élèves. ngeen. kay bala ngeen maa rëcc. xam nga lan laa bëggoon. votel Abdoulaye Diouf Sarr. ma nan laa def ba votel pour dénk ko suñu maire moom laa bëggoon loolu laa bëgg a xam charte yi parce que comprendre lu ma daal comprendre mu bëgg a xam. ah. est-ce que bëggoo voté Abdoulaye Diouf Sarr. ndax bëgg naa ko voté mais mooy géej gi man li tax ma bëgg a voté Abdoulaye Diouf Sarr man xam naa ko moom ci boppam dégg naa ko ci ay kàddoom mu ni daa nar ubbi Ndakaaru yaatal Ndakaaru taayi ko ba mu sës parce que dama di nii may taxawaaloo kafe gi laa bëgg mu dakk te leer na may man bu faloo dina ma wutal place ma daaj toog di fa lekk sama wërsëg te duma son wër gi daa métti damay tooy loolu yow tax ma bëgg jox me sama gox da koy yaatal maanaam wax ne kon Dakar bu féex nañu am bu bu neex Dakaaru bu ubbi day ubbi Dakaaru ah, yaatal ba mu yaatu yaataa yumbe ubbi ay tànkam ah, lu la neex defal maa la ko wax garanti gën te wóor waajur man waa léegi nu may def nan laa mën a def ba mën ko voté. boo bëggee voté Abdoulaye Diouf Sarr. gis nga bulletin bu marron bi. waaw te mu bopp fas bi. bu marron bu am bopp fas. bi. waaw ci ñaari kees. ah boo bëggee am bu ah, ci moom. ànd ci moom bu marron bu am bopp fas. bi booy. yow mii naan dëgg de. ah noonu. mais da nga foog ne yow kese yaa bëgg voté Abdoulaye Diouf Sarr. ay ñëpp moom lañ bëgg fasal de. ah kon yéen it moom ngeen di bëgg. moom rek eh booy muus yéen a. yéen doo leen ay laafaa tur bi daa eh. yéen doo leen ay faal fa doole eh dama leen di may kafe. li ngeen wax ci wax dama leen di may kafe. dootuma leen jaay. dama leen di may. def naa ko ci Diouf Sarr. jaajëf waay Diouf Sarr rek. jaajëf. Diouf Sarr bala Diouf Sarr. yéen dama leen may kafe. fi mu toll nii. sama carte moom laa ko jox. ndax ni may wën na ngeen di taxawaalu il est temps finir jaajëf Sarr nga ni kontaan naa ci yéen déedéet dinaa mu jàppale leen ni ni ma tegalee stratégie bi ku sax war mën a xam nga wut kii maro bu am fas nga dugal Ablaye Diouf Sarr beneen bi nga laxas pour yeneen maire yi àndal eewaay eh ni na kayit bu maro am boo paas Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye